salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julit yi bokki taalibe yi bokki yi jàkkaarloog ñun dañu seetaan noo ngi ànd ak yéen ci wàccaayu màggalu kazu rajab muy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab di bis bi Cheikh Mahamadul Fadal feeñe woon jamono ca Daaru Salaam waa xam ngeen ne bokk yi ku tudd Sëriñ falilu da nga tudd taarix ku tudd taarix it xel yëpp danañ dem ci dëkkam bi nga xam ne moo di Madina Mbooba nga xam ne mi ngi ko sanc ci atum 1939 wala 1939 wala lu ko jiitu tuuti ngir lan ngir liggéeyal yàlla ci àll bi ndax booba ku ne xam ne ne bi sëriñ bi demee ndigal li mu njëkk mujj a jot mook Cheikh Mahamadul Moustapha mooy jumaay Touba ñu doon nag seet ci àll bi fu ñu mën a liggéeyale yàlla eh, di ko def ci jumaa ji ndax ndigalul sëñ Touba la ñu mën koo matale coocu rek la fa Fallou jógee waaye fekkoon na itam bàyyi taxam ba doonoon xaritam ba di rakki sëriñ Touba ji ko njëkk jox boppam di Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh tubaab yi yóbbu ko ci dëkk bi ñuy wax Sigu foofee ñu ko yóbbu woon ci Mali nag Serigne fallu bi mu bëggee seeti Serigne maam Cheikh ngir fayaat bor ba ne maam Cheikh moo seeti woon sëñ Touba ci atum 1901 mu ne nag bor booba danaa ko fay ndax sëñ Touba du ameel kenn bor ma ne fi cooci la ko commandant cercle bu Saloum waxoon ne ko soo dëkkee ak man danaa la may autorisation pour nga mën a dem seeti maam Cheikh loolu moo tax ñaari sabab yooyu. sëriñ Falilou ñëw sanc ci dëkk bii di maddina Mbooba tudde woon ko Makkatal Mukarrama guy gi nga xam ne ci lañ nekk tey jii mu den ak Mbooba dëkk bii ñu jàkkaar loolu mooy xaayaan dëkk bi nga xam ne moo moo di xaayaan guy gii ñu fi nekk ci la sëriñ Fallu njëkk a taxaw julli fi ñaar rakka bind ci mbindum loxoom mi nga xam ne loxoom la ko binde woon te booba fekk na guy gi doon lu tuuti waaye nag guy gi àndaaleeg mbind ma di màggaaleeg moom bi mu jógee nag ci ñaar rakkam yooyu la daal di dëgmal fii nga xam ne moo di mbooba foofee nag incha allahu rabbi bu ñu fa àggee moo di dëkk ki nga xam ne tey jii mooy xalifa Cheikh Mahamadul Fadal di sëriñ Abo Baraka mbake yàlla na ko fi yàggal yàlla yàggal lool te dolli ko ak wér waaye mu dëkk fi mook ay rakam sëriñ Abibu da ngeen gis daaraam sëriñ Xabaan da ngeen gis daaraam waaye bu ñu àggee ci madina booba Serigne Fallou Ndiaye chef de village bi dana leen gën a leeral nag bi Serigne Fallou jógee fii ak bis bi mu jógee Touba ak ñi mu àndaloon ba sanc dëkk bi nga xam ne moo di Madina mbooba kon daal bokk yi fii la Serigne Fallou njëkk a taxaw julli fi ñaar rakk bind ci loxoom mbind mii ci guy gi daal di wuti nag dëkk bee nga xam ne moo di mbooba fii ñu jàkkaarloon nag moo di xaayaan nekk ci ginnaaw nasuru eh, ginnaaw nduureen nduureen nasuru topp ci nasru tiib tiib Mbàkke Bawal muy dëkk Serigne Bassirou kon ñoo ngi ànd ak yéen wuti Madina mbooba rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo noonu dañu seetaan ci jataay bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen jaar di leen bala te di leen ko baal di jiital ci sunu nuyoo ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yoonu murit mu di Cheikh Mouhamadul Mountakha ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir yi ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dolli kàttanu yaramam ak kàttanu xelam ak bopp may ko fan gudd lool wàll ak wér yaram ba yéenéen ju sell ji mu am ci liggéeyal lislaam jaare ko ci Seexul Xadim suñu borom jàppale ko ci ba mu àggale ko te ñu ànd ko moom te am ci ngërëmu sëriñ bi di bereel siyaar borom ëtt bi ñu toog tey di sëriñ Abo Baraka bi nga xam ne tey jii mooy jëwriñu kër Cheikh Mahamadou Fadal gépp ñuy ñaan borom bi subhanahu wa liggéey bii mu yore yoreel ko sëriñ Falilu te yaatal ko lool waaye di borom sànja bu mag nag ci am yéene magam yu baax yi mu wuutu ak baayam ba lu ñu naaloon ci liggéeyal ko lislaam mébét yi ñu fi bàyyi woon yépp mu fas ko yéene àggale yàlla ko ci yàlla far te defal ñu teew ci jataay bi ak ak njabootam di rakkam di sëriñ xabbaan moom Cheikh Mamadou Fadal waaye toog fi ak njabootam di sëriñ falilu moom sëriñ aboo ak sëriñ maam Cheikh ak bokk yi ñu fi bokk teewal sëriñ ci njabootu sëriñ Mbàkke Bousso kenn ci borom xam-xam yi kenn ci ndaw yi nga xam ne ñi ngi liggéeyal Serigne Touba ci dëkkam bii nga xam ne moo waxaloon boppam ne inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa mooy damay liggéey damay jihaad jihaad ci yoonu yàlla waaye ci xam laa koy teg ak ragal yàlla ñoo jihaad jooju am na ci koo xam ne bu Serigne Touba gestoo gis ko mu bokk ci ak njabootam te mooy di Serigne Fanilu Bousso moom Serigne Assane Bousso moom Serigne Mbacke Bousso ñu koy ñaanal moom it yàlla yàlla na wéral aw làmmiñam dana leeral ab dënnam asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalib yi fi teew moo ngi yëkkati suñu kàddu muy kàddu nuyoo ak cant di ko teg ci loxol jabootu Cheikh Mouhamadul Fadel gi ñu fekk ñu jot li ñu ko sëriñ Abul Baraka mi nga xam ne ni mooy jëwriñu ko Cheikh Mouhamadul Fadel mu jot li ñu ko sëriñ Mouhamadul Muntaqa mi nga xam moo ne ci alxalifatul aam lil muridin di ñaan suñu borom kàttanal leen yàggal leen fi ba liñ yéene liggéey ci lislaam ak ci yoonu sëriñ bi ñu jàppandal leen ko di nuyu mboolem ñi nga xam ñoom lañu fekk waaye di nuyu dem ñi nga xam ñoom lañu seqal jataay bi suñ Fallou Sylla ak suñ Fallou Ndiaye di rafetlu kàddu yi nga xam ne nii moo fi jot a jàll di nuyu mbooloo mépp ci nuyoo lislaam boobu nga xam ne mi ngi làmboo jàmm ak yërmandi ak barke ñaan sunu borom ci barke weer bi ñu dugg te mooy weeru rajab yàlla ful ko tasaare ko ci àddina bi yëpp waaye rawatina réew yi nga xam ne ni ay jullit ñoo fay dund na suñu réew mii di senegal di fàttaliku Cheikh Mouhamadou Fadil bu baax ci weeru rajab ak bis bi nga xam ni ci lañ jëm defe naa ni ko sëñ Fallou waxee léegi sëñ Fallou Ndiaye ci sëriñ bi bi muy sanc si dëkk bi fi mu wax ne fi la toll weeru rajab ci boppam day firndeel loolu ndax xam ngeen ne weeru rajab guddi giñ ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yi mooy tombee guddig rañaan gi. mel ni juddug Cheikh Mouhamadou Fadil ak julli juróom ñoom ñoo maase ndax guddi googu ci la wàcc kon muy guddi koo xam ne nii buñ ñëwee ci madi dëkk bii di madinatu mbooba te sëñ bi wax bi ko sëñ bi sanc situation bi mu toll woon kon day mel ne loolu rek moom lañuy fàttaliwaat waaye nag yaakaar naa ne ku nekk xam ne xew-xew boobee ba ci yonent bi jógee daanaka doole la fi nekke ba ni mujjee suñu borom taala te booba léegi lislaam day gën di yokk waaye la gannaaw day mel ne kon Cheikh Mamadou Fadil ba mu jógee ci dëkk bee di ñëw fiit fii kon ba mu fi ñëwee ba léegi moom it ay tànk yuy jox ci kanam la rek la jëm waaye nag lépp dafa yokk waaye dara wàññiku kon nag ñu ñaan suñu borom mu dugal ñu ci barke boobu ñun tamit ba yokk suñuy mbir yéwénal suñuy mbir dugal suñuy pexe te tàqal ñu ay natt ak i ndokk yi nga xam ne ni mën naa gaar doomu aadama kon nag ni ko suñu fàll waxee léegi xam naa waxtaan wi day mel ni xeetu synthèse lay doon maanaam tënk lay doon ci waxtaan yi fi jaaroon ndax day mel ne bu weeru taroo ba léegi wala lu ko jiit sax waxtaan nañ Cheikh Mahamadou Fadil ci dimension yu baree bari ci tomb yu wuute yoo xam ne nii yu fasanti ko mbokk yi nañ ko kon day mel ni buñ bëggoon a tënk ñun suñu waxtaan tey dañ koy tënk ci sëriñ Mouhamadou Fadil Mbacke ni mu nekk woon li ñuy wax homme multidimensionnel te mooy nit koo xam ne nii dafa bari ay man manif dafa bari ay ay ay feem ay man-man mooy koo xam ne ni wet googu xool rek day mel ni moom la gën a mate loolu mooy tënk waxtaan bu ko mu nekk tënk ci mboolem waxtaan yi nga xam ne ni jotoon na fee jaar ak leneen luñ ci mën a yokk kon dafay mel ne buñ ko bëggoon tënkaat ci ay kàddu daañu wax ne kon buñ waxtaanee tuuti ci Sëñ Fallu bu fekkee da ngay gëstu xam-xam akum xel ni ci xereñe woon su da ngay gëstu ko am sases te mooy ko am xereñ ab yarkat ni mu ci meloon fekkee da ngay gëstu ko xam wàllu àddina wàllum politique ak ban taxawaay nga ci war a am nu ci meloon fekkee da ngay seet producteur bu mag koo xam ne day produire lu bare bari ci wàllum économie danañ wax lim ci meloon boo fekkee da ngay gëstu koo xam ne nii nag ci wàllum social moom maanaam jëflante ci biiru xeet moom it ni ci meloon kon yooyu ay facettes la yoo xam ne nii bu ci nekk moom Mamadou Fall ràññikoo na ci yoon ak yeneen yoo xam ne nii xëy na ñu ci des danañ ko mën a jur waaye bu ñu bëggoon tënk nag sama Mamadou Fall ci boppam mooy kan rek sëñ Mouhamadul Mamoun Niang daf ñu ko tënkaloon ci am bind bindu boppam yaakaar naa ku ne xam ne suñu mënoo ma ñëw diggam ak Cheikh Mamadou Fadil mu bind ci moom doon ñu xamal moom mooy kan. lam ko njëkki def ne moom ku amoon dëggoon nammeel la saduqul iraada nag mooy ku nekk murid saadix murid saadix nag bu ñu ko waxee xam nañ melokaan yi nga xam ne ni mooy daje ñu door wax ne diw murid saadix la kon melokaan woowu la ko njëkk a jox. daal cee teg ne ku soppoon Serigne Touba radiyallaahu anhu la loolu dafa bokk ci sart murid saadix mooy nga bëgg sab Serigne kon ràññikoon na ca lool. moom sax dem na ba naan sopp Serigne Touba moo ma jaral tool ay rankoñ yoo xam ne day mel ne rankoñ yu deret lay doon nekkoon ku am yërmande ci nit ñi loolu def naa daan ci gën a ñëw gën ko ñaatal waaye nekkoon njiit lu mat njiit ku mat njiit jiit lu mat njiit jiite mbooloo lu yomb waaye ku ci ràññiku woon la moom it dañ ko gën a leeral nekkoon ku am tolérance te mooy koo xam ne nii mën ngaa dëkkoo lu baree bari wuuteeg nit pas-pas du tee nga mën a jaxasoo moom wuuteeg nit xalaat du tee nga mën a jaxasoo moom te du la yàqal lenn sa pas-pas loolu daan ci andi ay firnde ci kanam tuuti nekkoon ku nooy wet ku nooy wet mooy koo xam ne nii maanaam da nga mën a jëflanteeg ñëpp te doo won kenn sa bopp doo diisal kenn loolu nag sore na lool ak nga woyofal maanaam nga def lu mel ne xet ñàkkal sa bopp sa fayda déedéet waaye danga mën a jëflanteeg ku nopp ku nekk ci ak woyof te duñ tax sa personnalité dara wàññi nekkoon ku yaatu dënn ku yaatu dënn mooy ku mën a supporter lu baree bari defe naa ne ko suñ fàllu si la waxee léegi suñ fàllu Ndiaye ñëwaat ci buñ gëstoo histoire Cheikh Mamadou Fadil liñ ciy gis ci ay coono ak yoo xam ne ni dégg na ko ak yoo xam ne jànkonte na ak moom bu nekkutoon ku mënta mën naa am sax kon buy gàddaay dana weesu fii dem gën a sag waaye mën a supporté bu mën a supporté moo tax li ko ci fekk lépp dana fekk ko ci suñ Mouhamadou Mamoun Niang tam nee na ku mënoon a kaf la kaf boo xam dafay tegu ci dëgg ba noppi am njariñ lool loolu xëy na mënees na kese yu bare bare yoo xam ne ko ci nett nga xam ne saa yoo ñëwee mu wax la loo xam ne nii dana la dalal sa xel ba nga ree lam lay defal mu dox la ko defal loolu jëm ci lu wax ne nag ku mënoon a way ci làkku arab la di way ci saliqa saliqa nag bu ñu ko waxee mooy koo xam ne nii booy way ci arab da ngay mel ne kuy wax wolof maanaam lenn luy niroog lu la jaaxal du ci feeñ maanaam kuy day mel ne yow mu toogoon di làkk say wolof rek noonu lay demee ci yow day mel ne doo ci jël lenn loo xam ne ni day mel ne ak jafe-jafe lay doon ci kooku nag kon bu ñu tënkoon loolu rek da ngay daal di gis ne kon maanaam facette yu bari yi doon wax Cheikh Mamadou Fall day feeñ ci tënkub Cheikh Mahamad suñu ma doon ñëw boobu def ci moom buñ ko doon jël par benn nag jéem koo faramfànce fàcce njëkk dañuy wax ne moom boroom xam-xam la woon boo xam ne nii da caa tegoon di jëfandikoo xelam xeltukat boroom xam la woon di ab xeltukat xeltukat nag bu ko waxee ci baatu wolof mooy li ñu tuddee mooy koo xam ne nii day jëfandikoo am xelam ndax xam ngeen ne am xam-xam ak nekk xeltukat bokkuñu da gis koo xam ne dana bari xam-xam lool waaye nag bu nekk intellectuel maanaam te ñaari nag borom xam-xam kese kese kese ngir mu mën a jëfe xam-xam boobee day jafe ñaari njumte yu bare ku jàng ba ne ar te nekkul intellectuel moo koy indi ci biir yëpp ndax moom texte lay gëm maanaam xarf lay gëm ñu bind rek lay gëm luñ noppee bind moom noppi na caa xalaat noppi na caa gis leen xeltukat nag mooy koo xam ne nii boo bindee moom jox ko dana ko xool bu baax xoolaat ko nam ko war a dégg bu situation taxawee dana ko jàngal situation bu baax bala caa génn gis ñu borom xam-xam kon ñaari yooyu la boole woon moo tax lañ gis koo xam day nekk boroom xam-xam nekk intellectuel waaye day gis koo xam ne day nekk borom xam-xam te du nag bu ñu ko waxee dafa am nuñ koy xale bu ñu bëggee fésal ne si Amadou Fadel ku amoon xam-xam la mën nañ koo fésal ci ñaari yoon yoon wi ci njëkk mooy dañ ne nit ñu nee barab sàngam la jaar da nga mën a seede ne kii de boroom xam-xam la maanaam am na barab yoo xam boo fa jaaree am na façon université yoo xam jamono ji buñ la tuddalee ne la diw fa la génne buñ nee la borom xam-xam la doo ko weddi moo tax am ni ñoo xam boo jaaree seen loxo buñ nee boroom xam-xam nga doo ko kenn buñ nee borom xam kenn du ko weddi te moom ci boppam moo ko daan waxal boppam daan wax ne suñu bàyyi ci am daf ñoo jàngal bañ ne ar mu yar ñu bañ ne nër mu yee ñu bañ ne jaar jàngal gi bañ ne ar mooy xam-xam bu bari bi yee gi bañ ne jaar nag mooy intellectuel bi mm-hmm. ñaar yooyu la boole woon kon loolu moom moo njëkk a seeral boppam ne kon li ñu war a xam lépp xamoon na waaye bu ñu xoolee ñi ko seqoon tam ci wàllu jàng ak jàngale te muy sëñ Tuubaa de la nga ñëw ci sëñ Maam Mor moom soxna Jaara nga ci sëñ Mbàkke Bousso ñëw ci Cheikh Ibrahima Fati ñooñu kuñ séq ci laqaka buñ ne yow boroom xam-xam nga kenn du ko wet ndax ñooñu seen i jamono ñoo doon kànfoor yi ñoo rawoon ci seen i ñoo ñu ñoo ko seq ci wàllu jàng ak jàngale kon loolu buñ ko jaaree histoire biographie boobu bu ñu ko waxee kon buñ nee Cheikh Mamadou Khadim ci boroom xam-xam yi la bokkoon kenn dootu ko mën a wet ndax waxal na ko boppam waaye itam ay jaar-jaaram tam mën na koo firndeel waaye itam xam boroom xam-xam dañ ko xam ci maanaam la muy la muy la muy bind la muy produire ci wàllu xam-xam loolu dañ ci gis lu bare loo xam ne bind na ku mu aju ci wàllu xam-xam surtout rawat na ci ay xasida xam ngeen jamono yooyu boobu boo masaan jàng li ñu xamee saw jàng mooy ngay def ay way ay bayit boobu taalif téere yi ñu wesar ni bariwul lool lool xam-xam bépp ci ay bayit lañ ko def nit ñi di ko mokkal waaye nag li ngay xamee ne borom xam jamono mooy koo xam day bind ci bayit yu bare bare da nga gis koo xam ne nii tagg dong lay man gis koo xam ne nii marché dong lay man gis koo xam ne ne nii benn fànn way rek lay man waaye Cheikh Amadou Fadil ci xeetu way yi xam yëpp ci jamono bu ci nekk def na ci ay xasida xeetu wayin arab yi itam nga xam ay buxur la yi ñuy natte way arab yi daanaka baxar bu nekk way te boo gisee yenn waykat yi ñoom benn baxar la ñuy mane nga xam seen way yëpp lañ koy way wala ñaar wala ñett waaye fukk ak juróom benn yi wala fukk ak juróom ñaar yi bu nekk nga sadd ci ay xasida loolu tegtal la ci ne am nga maîtrise su baax a baax ci wàllum loxo la ak ci wàllu xam-xam waaye itam tom thèmes yi wuute nga di ci way loolu dafay tegtal ne sa xam-xam rafet na lool ndax boo demee ci mat da nga gis yim ci def boo demee ci maanaam boo demee ci tagg da nga ci def boo demee ci marsiya da nga gis yim ci def boo demee ci deeyaale ak sunu borom subhanahu wa ta'ala da nga gis yim ci def boo demee ci wàllu jokk maanaam tawassul ci digg diggam suñu borom da nga gis yim ci def loolu nag boo ci yokkee ay discours yu am solo yi nga xam daana ko bind yu matale yoo xam daana ko bind ci ay jamono di ko jot ci mbokki taalibe yi loolu da gis ni discours la yoo xam ne nii lépp luy xeetu xam-xam ci diine ak lu ñu war a xam Sëriñ Tuubaa bi daan dana tënk ci discours bu gàtt boo xam ne nii dafay tegtal ni kii li muy wax xam na ko bu baax kon loolu euh, dafay tegtal lu xam-xamam kenn mënu cee sikk sàkk kon booy gëstu borom xam-xam ci dimension si xam Amadou Fall mën nga ko ci ànd dugal bu baax a baax. salaam wa rahmatullahi jërëjëf euh, sëñ Fallou euh, tomb bi yaakaar naa ne euh, leer na nañ tey doonut mbu moo xam ne rek danga ne jekk na ci sëñ Fallou naa ko ko jox day mel ne mbuub mi bi ñuy dagg dog piis bi sëñ Fallou toxoon téer bi ci moom la jël dimension bi bi mu ko ñëwee ba noppi moom la ko yët léeg-léeg nga gis koy waxtaane waa ju baax danaan loo ko xalaatal ci lu baax yaayoon la ko naa ci bataaxal yi ma tiim rek ñetti bataaxal yoo xam ne sëñ Fall da cay jàngale benn bu njëkk bi mooy bataaxel bi mu waxal boppam ci ne li li yonent bi dajoon ci Makka ba tax mu bëgg a gàddaay dem Taïf daj naa lu ne toll ba tax ma gàddaay jëm si Madina Madina Salaam gii muy Madina boobu kon waa Madina boobu war ñoo xam eh, ki jëm si ci ñoom mooy kan ndax ku ku ku ku xat la fi barab ku ay nattu dal ci kawam la mu jaaxle ba jóg am fu am xelam dem yaakaar ne bu fa àggee jaaxle nga saafara mu mel ne waa madinatu salaam ni ñu teeroo sëriñ Falilu bokkut ak na waa Taif teeroo yonent bi sallallahu alayhi wa leetar bii mu waxoon sëriñ Abdou Khadir na ko Abdou Khadir yaa ngi fii mu ne ko waaw mu ne ko bala na bala na nux nux na war a war kon loolu day teg ci la métit ak coono ma gis leetar boo xam ne moom moo ko bind adressé ko maami Serigne Cheikh Thiondo ju jigéen wax na ko soxna Maguette maa ngi lay bënd bataaxal bi di yebal ci yow ndaw li tax bataaxal bi agsi mënumaa ñàkk ceenu or walla walla walla lame lame wurus wala takkaay lu lu lu gànjare lan la ci sëñ Fallou doon doye nee na ko dama koy tayle ngir lan dund bi woon ci kër gi jeex na dund bi woon ci kër gi jeex na te ndaw li ma yabal li ma ko wax munta ñàkk noo mën a def ba ma am ko nan na ko wut ndax dana baax kon sëñ Fallu sonnoon na te loolu ba mu koy wax ci ay mitit nag ci sëñ Tubaay baayam ba mu koy wax fekk na li mu a jàng lépp mu jàng ko di doomi soxna joo xamante ne bii sëñ Tubaay baayam dina jaayam waaye teewut yàlla seetaan coono bi dal waaye bataaxel bii ban bataaxel moo ko tontu mooy bataaxel lu mu sonn sonn lu mu métti métti nee na du tax ma ñàkk kilifa bindaat na banaan bataaxal Ahmadou Ndiaye ne ko waxal Fallou jaw na ko te nga wax ko ko bu gaaw bala caa def dara nee ko sàq maam am jox naa ko sëñ Modou Moustapha addiya nee ko jox naa ko sëñ Modou Moustapha addiya lu bataaxal la bu mu bind bindaat beneen bataaxal bu ñetteel wax ne yow Ahmadou Ndiaye maa ngi lay digal nga wax waa bobi ne leen yabal leen ci sàq ma boroom kër gu ne na bojju bari ko def ko ab dund la ca des ñu xaaree ko jaami yàlla yi waaye bu benn bëri comme tumuraanke xoolal ci li mu doon dépensé alalam li mu daj xoolal coono bi ko daj bi mu daj waaye xoolal li mu am moom diggante sa boobu réggu ko matut waa këram waaye mi ngi koy séddale jaami yàlla yi looloo taxoon su jàngalekat bu ne jaamu jaamu ji leen yàlla ci jaamu yàlla yi day fekk moom muy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi pot lu niwut ci moom mënu koo def ci morom bi. salaamaaleykum wa rahmatullahi yéen waa Madina booba maa ngi leen turu suñu xabaar yi nga xam ne moo jiite délégation bi suñu sant man mi def lu ma lu jafe sax loolu ndax xam ne ak ni ko a waxee bokkuñ waaye yéeneen si yaay kenn surtout ak ci loxo service bi teg ko ci loxo la def ñi nga xam ne waa wax ci dëkk bi ak ñi ñu fi nekk yëpp ñu ngi baax di la wax ji daanaka jël guddal ndax li fi am njëriñ wax nañ ko fi xanaa sant ak gërëm rek ñu ko waxee léegi rek dafa ne alhamdulilah gaa yi ngeen wax ndax 1932 euh, la sëñ Fall jël sëñ John fii li fi si suñu borom subhanahu wa taala di mag wax na ma ne sëñ Fall dinaa ko dëkk bi jàng naa fi junni kaamil eh. wax na ma ne wax na wax na fi tam nee na loolu ñu wax mënul ala fii la ko njëkk wax na ne fii tam ñàkk na fi ñàkk boo xam ne doomu aadama musul ak ci ne tim wér na fi latif ba nga xamante ne aussi ni wax na tim ne mu am ci Sëriñ Tuubaa bokk ko bokkam Sëriñ Tuubaa loolu Cheikh Lo génn ci àdduna kon li mu jaamu yàlla képp di liggéey waaye di am Sëriñ Tuubaa dafa denc ba ëllëg ndax fii Cheikh Lo ko fi kon fi ñëw war nañ xam mooy fan di wax ne Madina booba waaye Madina booba la woon euh, dafa yàgg ndax denc mag la am na xam ne sax di ko di ko di ko di ko jeexaat wóorut waaye nag li xam ne denc bi suñu baa fii rek na ku jox Cheikh Faye dinaa xam ne ko dong yéen a bokkoon dafa rafetlu woon rafetlu boo xam ne wax ne dafa rooti ba ñëw fekk suñu baa ngi ci kër gi takkusaan gi di bind nee bi ñu sotti ndox mi ci ci ci ci ndaar yi daanaka mënu si si kanam ndax tepp gisam def ndax caay ju toj ñu ko bisimilah si affaire mu ko ah, raf rek ñoo kaa ma jox la bay di sëñ tuwaay yoo xam boo ko jàng du si bi kulla murid aaliya xëy li basin bi tufa tax rek si affaire yi di ko jàng bu ñu def ne ñetti bi bu bàyyi na ko fi eh. murid yi ci boppam képp wax bi nga ba nga ba nga rafle ci di ko jàng ko kon loola mooy ko sëñ yooyu ma jox la ko jox ko murid yëpp ñoo def ndax rafle mu baaxut kon na rafle amoon na fii metti woon na lool tim ndax daa ndox lu jafe woon la ay kilomètre naa lool wala fu bari di ko ay siyaar ak tappaat rek jógu ci day wax ne nit ki bu fekkee ne dañ ko defal lu rëy war naa cant cant kenn santut ñu ngi sant bu baax di sant Cheikh Mouhamadou Fadel bi nga xam ne mooy mooy suñu kër kaay Sëñ Tuubaa ñi nga xam ne am Sëñ Tuubaa moo ko war mu ñëw wax ci moom waaye ndax Fatou Seck am na sukk nit ko tëdd boobu waaye loolu bi suñu fàll bu soo wax ma dégg ko fi rek walla jàngat la ci ñun ñëpp képp ko xam yaa ngi xalaat war nga bàyyi xel ko ñu jëm koo rey waaye di wax xalaat suñu fàll yooyu weesu na a rey ci ba jukka suñu def ci wax léegi de suñu fàll ne leen kuñ tudd nga tudd am nga sa suuree bu fekkee ni ngay xalaat koy xalaat bi waaye suñu fàllu baax rek nga yow nga nga non non non fën fën la sa baax yow yow loo war def sama bàyyi def lii sama maama def lii am loo def war ngaa góorgóorlu def dara kon kon ñuy sant su bopp dee sant di sant sëñ bi di ko ñaanal moom muy xëy moo fi jëmmi sëñ Fadil tey di jëwriñam bi léppam soo ñu ko fi lu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax ko war ku ne sa kilifa loo ci fekk mooy kon wan nañu yow yoon xamal nañu ni ñu war a doxee mooy ni téye suñu tànk téye suñu lame lu suñu yoon ni ko suñu yoon bañ ci waaye lépp loo xam ne suñu yoon nekk ñu ñu ko nangu ko téye ko loolu digal nañu ko li mu am bokk na ko ñoom li ñu am bàyyee na ko kon loolu na leer adduna sépp di santaa yàlla ndax suñu Fall wax ne 1986 1886 la ñëw attu defe naa dëkk bi nga suñu léegi ren 86 ans juróom-ñett fukki at juróom-benn ci ren ji waaw ah, loolu muy démb démb rek la ñu jël Madina boobu yi di woobu ci waa ci administration démb waaw kat loolu la lu réer loo xam ne mel na sëñ bi ba nga ko sëñ ba tey mi ngi bëgg lu mel noonu waaye ma ma xibaar leen ko dinaa yëgee ko waaye nañ ko yëgaat yéen ñi xam ne yéen fi nekkoon dem ay Colobane dem ay Gossas ay Fatick fu ne ngeen di Fatick ngeen dox ngeen fatigué léegi nag yaa ngi Touba lépp lu ngeen bëgg Touba la ko jox ndox mi Touba koy fay courant bi Touba koy jox ko yi Touba koy indi lépp lépp sëñ Touba koy indi kon alhamdulilah bi alamin nag dootu la wuti fenn sant yàlla bu jooy ndax ak cant lu mu réy réy fekk gisu doo mën a sant waaye cant na fii mel na mu daa des kon moom yàlla defal ma ndam ndax wax na bis la ana sëriñ Fall bi ñëw fii ak yor yor mu déw ko fi mu ko digal déwél ko fi mu ko déwél jowoon moo ko tax mu toog bari na mbooyee bari na mu toog fii sàmm ngorom sàmm dineem sàmm taalibeem di sàmm baat ba ko way jël waxoon ba nëgëj lépp da ko fekk mm-hmm. nañ ko mu gën a yàgg ba mu waxee loolu ne Madina boobu laa bëgg bëgg laa bëgg laa bëgg mu bokk ci Tuubaa moom si dina ci bokk noo ko daa ci bokk mu ne mu ne ah yaaram def nga ne ma ko daa ci bokk loolu ko siñu ko defal ndax li siñu ko bëgg ñaa ko defal ku ne gis na jumaa ji ko defal ci Ndakaaru jumaa ji mm-hmm. ne ko xarkanam xarkanam maanaam sàgganu xarkanam la loo fenn fenn mu gis yow mu ne bakkan ci kanam rek bakkan euh, euh, ci kanam ku yéen ci xarkanam dara desuti kon jëf juré jooyu ñëpp nañ ko bàkk kañ ko xam ko ñu ko def mm-hmm. ndax toogu fi toogu fi rek di dundee suñu fàll du ko dundal du ko dundal ndax suñu fàll weer bii ci la ñëw àdduna weer bii ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaanee dem si suñu borom subhanahu yàlla li mu jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp ci kaw ko jox xam ne mel na yàlla yëpp julli juróom moo ci gën mag gi mag gi mag na moo tax suñu borom subhanahu jël yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaane ko bay masjidul haram dem baytul maqdis jëm ko fa soob sëñ Fall di wax ne yonent bi dana lay mën a cëpp kon dafa mel guddi kero yàlla rayaan na jaamam boo xam ne dafa dem sidratul muntaha waaye rayaan na jaam boo xam ne tëtt saraar a jëm yàlla ji la benn place bi kenn kenn jëm ji bi mu subhanahu wa taala yàlla du ñaar du kenn rek la yàlla fépp fépp nekk yàlla yàlla nekk fépp fépp nekk yàlla ndax boo ne yàlla nga fépp rek am fa des waaye fépp nekk yàlla kon nañ gën a góorgóorlu te gën a toog rek te rek ndigal yi na ne suñu falilu lépp suñu doo am wàlla ci te lépp lu am du war ko ne du war moom lu am dara bokk yéen moom ñii mu boole tamit du ñu mukk ci kon yal na ko yàlla gën a yàggal te may ko wér te yàlla muy génn jël ci moom yàlla nekk suñu muur nekk muuram ñu ngi ñaan ñu ngi leen góorgóor te sant leen góorgóor leen baax toog rek lépp lu seen tuwaay seen de tuwaay daal dana fekk fii loolu table gi ñëw na te ndab laa ngi ñëw te dana dana des dana xaayaan moom dana tasaaroo